Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu seen euh, auditeurs yëpp. Mhm. yow yaay directeur exécutif euh, Amnesty International section Sénégal am na nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi alors euh, monsieur Gassama tey àdduna bi yëpp dañuy fàttaliku xew-xew yu metti yi amoon 11 septembre 2001 bi nga xamee ni kon terroristes yi dal nañ ci kaw Amérique ñu bëri ñàkkoon ci seen bakkan boobaak léegi Amnesty International ban xayma la def ci phénomène terroriste ci àdduna bi. depuis événement 11 septembre daanaka adduna bi euh, vraiment nekkatul nu mu ne nu mu nekkoon xam nga 11 septembre bi mu amee euh, maa ngi fàttali keroog euh, ci ci ci débat yi ci télé yi analyste yi bëri dañu ne n'est-ce pas à partir du 11 septembre dootul nekk mukk àdduna bi nga xam ne moom lañ ñu xamoon am. Hmm. donc depuis le 11 septembre réew yu bëri dugg nañ ci guerre contre terrorisme bi. parce que euh, terroristes yi euh, américains yi dañuy intervenir en Afghanistan dàq leen foofu ñu tasaaro tasaaro boobu nag tax na ba ñii nga xam ne ay pakistanais ñu dellu Pakistan euh, ñii dem Iran ñii dem Irak ñii dem Libye ak ay Somalie bi ñu demee nag ci dëkk yooyu yëpp agenda jihadiste maanaam créer ay république islamique agenda boobu dañ ko poursuivre ci seen seen biir réew. ba pare tamit agenda bi nga xam ne moom la Euh, ben Laden amoon maanaam xeex Amérique parce que Amérique daanaka euh, moom mooy jàppale jàppale maanaam Israël ñëpp xam nañu ne frustration bi nga xam ne moom la jullit yi am te mu tax jullit yi bëri tey radicalisé wu mooy xale yi nekk ci biir France mm. xale yi nekk Belgique ay Angleterre li tax ñu radicalisé wu mooy li nga xam ne chaque jour ñu ko ci télé yi maanaam violence bi nga xam ne moom la Israël di teg jullit yi ci Palestine mm. bés bu nekk Israël eh, day day rëy ay jullit mu ngi leen di noot te eh, loolu yëpp c'est parce que Israël daf am ñu koy protéger ñu koy protéger mooy euh, dëkk yu mag yi États-Unis France Angleterre ak mm. yeneen ak yeneen donc frustration boobu nag moom moo tax ba tey euh, maanaam euh, xale yi radicalisé wu ci ci dëkk yu mag yi di attaquer seen propre pays ndax foofu la juddu judd mm. waaye tamit tax na ba fépp foo xam ne am na ay dëkk yooyu muy France muy Angleterre fépp am ñu fa intérêt ay ay ay base militaire wala ay ambassade ak yeneen yeneen yeneen euh, base yooyu ak intérêt yooyu day nekk tey ay cible hmm. euh, pour les acteurs terroristes ndax suñu leen mënul jot ci seen bi ci sur le sol français euh, évidemment dañuy dañ leen jéem a jot fépp fi nga xam ne am nañu fa ay intérêt hmm. te xam nañu ne dëkk yooyu foo dem ci biir àdduna am nañu fa intérêt hmm. Amérique dëkk boo dem ci biir àdduna am na fay intérêt diplomatique militaire ak économique France noonu Angleterre noonu loolu tax na bi dañu du ci xeex contre terrorisme jël nag ay matuwaay yoo xam ne euh, daanaka dafa wuute ak li nga xam ne moom la adduna bi adduna bi àndoon euh, d'accord maanaam respecté euh, ak ak yelleefu doomu aadama li mel ni torture ñu dàq ko nit ñi am seen liberté d'expression maanaam di wax seen xalaat tey am na lu bëri loo xam ne soo ko waxee Euh, ñu ne la ñu accuser la d'apologie au terrorisme tey mënatoo critiquer Israël euh, ci kaw tey mënatoo wax saa ne Amérique dëkk dëkk la boo xam ne euh, maanaam dëkk la boo xam ne am na kàddu yi ñu nekk soo ko waxee ci Amérique ñu jàpp la. Hmm. yaa ngi fàttaliku imam bi nekkoon Kolda. Hmm. imam boobu lenn rek la waxoon. que terroristes yi gën a mag ci biir àdduna mooy Barack Obama ak François Hollande ak keneen keneen loolu moo tax ñu jàpp ko. Hmm. tëj ko kaso pendant presque trois mois. xam nga loolu en temps normal sa fait part de la liberté d'expression xanaa li ñu ko tuumal mooy mu ngi doon def apologie apologie du terrorisme mu ngi doon euh, maanaam maanaam magal euh, li nga xam ne moom mooy terrorisme te lu lu loi yi bees ñi dugg fi ci biir Sénégal euh, daf ko dàq mun nga ci tëdd kaso ay at yu kon su ma la déggee fii ci Sénégal tamit nit ñu ñàkkee respecté euh, àq ngelefu doomu aadama ci xeex terrorisme ci àdduna bi yépp noonu la amee fii euh, mun nañu ci tudd peut-être yenn procès yi nga xam ne jotoon na fi am ñu ñu arrêté woon ci wàllu terrorisme euh, mel ni imaam da wax ñooñu da nga gis ni seen àq ak yelleef itam dañu ko salfaañe ci wàllu xeex terrorisme. mais dañ ko salfaañe bu baax parce que xam nga avant kaw imaam Ndao amoon na kaw. benn benn benn benn euh, xale lu góor xale la Mohamed Gassama mi nga xam ne amoon ay partenaires somaliens ñu doon liggéeyal euh, parce que simplement service que américain yi dañu alerté woon ci somalien boobu daal ko doon transféré xaalis. Euh, depuis Dubaï mun a ci biir Sénégal société bii Abdoulaye àndoon na ci nguuram àndoon nañ ci xam nañu ko parce que simplement benn jour benn télégramme américain moo jógee alerté gouvernement Sénégal ñu dem arrêté leen tëjoon ci biir kaso pendant ñetti at n'est-ce pas mujj bi tribunal Dakar euh, atte na leen setal leen bàyyi leen ñu dem euh, kaw imam Kolda wax naa ko sànq kaw Aliou Ndao gis nañu ko euh, imam Aliou ndaw mujj bi procès bi fan la mujj dara nit koo xam ne simplement dañ ko dénkaan xale ñi ko dénkaan xale di koy woo ñooñu nag tuuma leen terrorisme ci beneen dëkk n'est-ce pas ñu jàpp ko moom tëj ko kaso at yu bëri je crois que loolu dafa wane nii que vraiment dafa mel ni course la état bu rek dafa ko wone américains yi wala ak français yi ak anglais yi ne moom mu ngi xeex terrorisme. Hmm. mu ngi ciy def li mu li mu mën. Eh, parce que simplement évidemment euh, am na ci ay ndimbal yu xam ne mën nañu ko seen si saytu hmm. euh, loolu yëpp mën nañu ko soupçonner. et vraiment je crois que euh, lii xeex mi laaj mooy daal dafa laaj daal te état war a xam ne xeex terrorisme n'est-ce nga feebe ci biir dëkk lépp loo xam ne mun na andi. Euh, fitna nga dindi ko fii fexe ba euh, maanaam ci wàllum démocratie nga dox sa démocratie nu mu waree respect ak ak ak yelleefu doomu adama fexe ba ndaw ñi am liggéey n'est-ce pas euh, fexe ba évidemment liberté religieuse nga respecté ko mm-hmm. n'est-ce pas ñi di jaamu yàlla nu mu leen neexee ñu ñu bàyyi leen di leen di leen buntu xatal je crois que loolu yëpp suñ ko defee n'est-ce pas mun ñu nekk vraiment en sécurité par rapport au terrorisme waaye du hmm. rek ay xaalis di koy dépenser euh, ci kaarange boo xam ne euh, xëy na menace bi nga mun a bi la mun a bi mun a jot menace boobu daanaka menace bu tuuti la. justement dañuy gis ne yenn réew Afrique yi yu bëri Sénégal ak euh, yeneen euh, souvent bu ñuy am yenn actes yi ñuy posé day fekk bitim réew yenn réew yu mag yi ñoo leen di jox information ni ko waxee sànq est-ce que loolu mun nañu jàpp ci ne euh, réew yooyu amuñu programme boo xam ne ñoo ko tëggal seen bopp selon ñoom menace bi ñu sentir mais ci bitim réew la ñuy sukkandiku ngir di poser yenn yenn actes yi. waaye vraiment lépp loo xam ne. xëy na ñoom su dee mënuñu ko def ci seen biir dëkk mais dañ ko jéem a def à te prétexte bi mooy euh, am pour américain yi euh, ni ma ko waxee sàng rek am nañu ay intérêt ci réew yu bëri soo seetee attaque yu gën a métti ci Afrique euh, yi nga xam ne Al-Qaïda def na ko attaque yooyu Nairobi la amee ak ak ak Dar moom ay téeméeri téeméeri nit yoo xam ne ñàkk na seen bakkan si ñaari réew yooyu euh, kon fépp foo am ñu fa intérêt rek pour ñoom seen intérêt euh, dafa nekk en menace moo tax finalement dañuy dugal tous les pays du monde euh, réew àdduna yëpp ci biir guerre boobu ba pare nag lépp bépp loi boo xam ne ñoom jël nañ ko seen biir dëkk n'est-ce pas wala yoo xam ne sax mënuñ ko jël seen biir dëkk parce que foofu am na démocratie am na foo xam ne mënuñ fa ligne boo xam ne nuñ ko dépasser hmm. n'est-ce pas yooyu réew Afrique jël nañu ko Eh, tey ci biir Sénégal am na kàddu yoo am soo ko waxee ñu jàppala ñu ne apologie du terrorisme ñu tëj la ci biir kaso mm. ah, nga wax ko ci kaw wala bind ko internet eh, aujourd'hui tout le monde est surveillé réseaux mm. sociaux ñu surveillé eh, il suffit que simplement nga def ci critiquer Israël di ci critiquer politique américaine au moins noonu mel ni kaaw étudiant bi ñu fi tëjoon voilà bi ñu fi tëjoon loolu yëpp mënoo ne jàpp tëj la ci biir kaso ci boo xam ne réewum jullit la réew boo xam ne ñun sax waroon nañu ànd ñun yëpp ñaawlu li li li occidentaux yi di jàppale Israël n'est-ce pas ak nootaay bi nga xam ñu ngi koy noot palestiniens yi waaye loolu su nekkatoon sa baat tey rek critiqué ko euh, mun nañ la jàpp tëj la ci biir kaso suñu la nga def apologie du terrorisme mm. kon euh, dugg ci xeex boo xam ne n'est-ce pas du xeex xeexu keneen la euh, ba pare ci xeex boobu ñu liñ ciy def ci ci ci ci ci wàllu noot suñu askan n'est-ce ñoom sax defuñu ko seen biir kon dafa am solo ñu ñu ñu ñu ànd ñu ànd ak daal ñu xoolaat xeex bi Euh, ni ñu koy defee ñun suñu biir réew évaluer menace bi nga xam ne moom moo nekk suñu kaw ah pour que ñu mun ko mën def façon efficace. Mm. Euh, damay rappeler nit ñi parce que dama dëgg trop ñu naan waaye jihadiste au Mali jihadiste au Burkina et cetera et cetera rébellion ci Mali ak rébellion ci Niger dañoo yàgg. Mm. ci année quatre vingt dix yi quatre vingt quatre vingt dix amoon na ay rébellion yu bëri yoo xam ne amoon na Mali am na Niger boobu Al sax kenn déggu ko ah parce que région yi nga xam ne fa la Touareg rek yi dëkk région yooyu nest pas dañoo dëkk région xam ne état état malien ak état nigérien dañ leen abandonné defuñu fa dara loolu moo taxoon waa dëkk yuy fippu jël ay ngànnaay n'est-ce pas xeex pour moom seen bopp mm-hmm. euh, mujj bi ñu régler conflit yooyu ci ay négociation jël ñeneen ci ñu fippoon ñu ci waa fipp bi dugal leen ci biir l'armée bi ñeneen ñi euh, dugal leen ci biir l'armée bi ñu daal di jéggi frontière yi dem Libye parce que Kadhafi dafa soxla ay mercenaires n'est-ce pas Kadhafi bi mu daanu nag ñooñu daal dellu seen biir seen biir réew dellu seen biir réew fekk nañ fa problème bi nga xam ne n'est-ce pas fukki at ci gannaaw wala fukki at ak juróom ci gannaaw moo taxu ñu fippu maanaam euh, manque de développement manque d'infrastructure euh, abandon par l'État yenn saa yi sax discrimination bi nga xam ne moom la État euh, di leen di leen def mm. ñu daal di jëlaat seen fetal kon problème yi si pour problème national mm-hmm. ah, il faut que état yu nekk ay état nation état yoo xam ne euh, dafay boot xeet yëpp boot euh, euh, toutes les régions du pays def ko benn mu nekk benn ñëpp si seen bopp. am na nag dëkk yoo xam ne comme ni nga ko waxee léegi menace terroriste ba réalité la fa donte am na yeneen yoo xam ne xëy na ànd ak France dugg ci xeex bi moo leen def noonu terroriste yi comme ni nga ko waxee sànq léegi réew yooyu ak yu mel nii euh, Sénégal surtout yaakaar nga ni euh, plan ak programme yi ñu teg ngir xeex terrorisme mën naa dëgg-dëgg aar euh, dëkk yooyu ak seeni askan. waaw xam nga programme yëpp dañ ko laal ci kaw répression maanaam surveiller nit arrêté ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ne ay terroristes la ñu tëj leen ci biir kaso di ci cible sax ay communauté da Sénégal tey soo soo soo soo soo jëlee kaw Sénégal ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ay ibaadu wala bokk ak ñeneen groupe euh, euh, alfala et cetera ñoo yëpp tey euh, am na dañ leen ciblé. Mm. dañ leen ciblé parce que simplement xëy na ñoom ni ñu pratiquer l'islam bokkul ak islam bi nga xam ne moom la taarix yi di pratiquer mm. donc Euh, dañ leen ciblé dañ leen stigmatisé li nga dégg sax ay kilifa politique ci biir politique bi ay kilifa yu mag yoo xam ne n'est-ce pas dañuy jël ay ay yu ñagas di ko teg seen kaw loolu je crois que dafa baaxul ci biir réew dafa baaxul ci biir réew état Sénégal war na xam ne xeex terrorisme mooy nga fexe ba n'est-ce pas euh, sa biir réew mu bañ am discrimination nga bañ a discriminer benn groupe sa biir réew fexe ba tamit ci wàllum euh, démocratie nga doxal démocratie respecté ak ko nit ñi ak seen yelleef respecté tamit euh, euh, gouvernance bu baax alal alal réew mi na ci ñëpp ci seen bopp xeex chômage u xale yi ndax xale boo xam ne am na am na xëy euh, mu ngi jàng ci ay lekkool yu baax kooku du xalaat n'est-ce du nekk xale boo xam ne bu frustré la ku mer ba muy dugg ci loo xam ne ay ay aventure lay doon kon euh, mbir mi euh, nañ ko xee ay matuwaay yoo xam ne moom la laaj eh, ñu bañ jël rek matuwaay yoo xam ne moom la américain yi ak français yi hmm. parce que yooyu dafa bokkul ak suñu réalité. Hmm. suñu réalité mooy euh, dëkk yu bëri lu mel ni Sénégal ak Guinée peut-être ak Côte d'Ivoire nga xam ne. moom moom moom la terroriste mën a mooy intérêt occidentaux yi hmm. ñu mere France la ñu mere Angleterre la ñu mere ñooñu maanaam seen intérêt ci suñu biir réew yi ñoom yow mun a nekk ay cible terroriste yi voilà boog su dee suñu état yi tamit am na ay présidents yoo xam ne ouvertement dañuy aligné wu ak dëkk yooyu hmm. ak France ak Angleterre ak euh, ak yenn yi wala sax am na ñoo xam dañuy replacer relation diplomatique ak Israël n'est-ce ak moom xaritoo ak moom am nga ñuy day daal nekk tamit ay cible du terrorisme international. alors fi ñuy jeexalee mooy euh, financement terrorisme Sénégal itam euh, am na xeex bu ñu ciy def euh, ngeen jàpp ne day dem ba laal itam ak ak yelleefu doomu aadama. waaw je crois que xam nga rek dëgg naa ay wax yu bëri yoo xam ne mun naa wax maanaam <laughs> fantasme la dëgg naa fi ñu ne waaw ñi yeelwaan ci biir mbedd mi. xaalis bi ñu ci am dañ koy dañ dañ koy dañ dañ dañ koy dañ ci financé terrorisme xëy na peut-être ñu ngi visé bambara yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi Sénégal euh, di di yelwaan je crois que euh, il faut que ñu ñu daal ah ñëpp xam nañ ne ñooñu yàgg nañ ñëw ci biir Sénégal. Mm. di fi di fi di yelwaan ah ñun ñëpp ñu nekkee xale n'est-ce pas daanu gis ay Touareg ñu xees. jóge Niger ak Mali ñëw di yelwaan Sénégal bambara yeeg ni di ñu Sénégal di yelwaan kon du tey la ñuy jóg di naan waaw lépp di ñu yelwaan dañ koy jël di ko financer terrorisme mm. je crois que vraiment ñooñu dañuy pour mun a dund ak dundal seen njaboot waaw léegi nag ñu naan transfert d' argent euh, day financer terrorisme mais transfert d' argent ñëpp xam nañu ko képp ku fi transfert argent ci biir Sénégal sa njaboot sa sa mbokk yi nga nga nga ko yónni gisuma vraiment euh, montagne yi ndaw yoo xam ne ni ñu ko yónni ci biir réew mi di ko yónnante ci biir réew mi euh, ku ñu yónni xaalis Bawol wala Casamance wala Tambacounda di utiliser xaalis boobu pour dafay terrorisme nit ñi dañuy taal leneen. li ñu dañu taal leneen mooy nu ñuy dundee nu ñuy dundee nañu bañ bañ amplifier phénomène terrorisme au Sénégal n'est-ce pas pour neex ak américains yi wala ni que ñu ngi xeex ñun tamit terrorisme. parce que loolu la finalement. Hmm. état bu nekk mu ngi bëgg a wane américains yi ak français yi ne moom mu ngi jànkuwante ak terrorisme te mu ngi def njàmbaar pour fa xeex terrorisme. Hmm. même si des menaces réelles amul ci biir réew ma waaw loolu mooy réalité bi. kon jàppoo ne menace réelle am na ci Sénégal. au Sénégal je ne vois vraiment pas menace boo xam ne mun na tey déstabiliser Sénégal euh, gisuma ko tey parce que mm. non seulement Euh, démocratie dafa ancré fi ci biir Sénégal c'est vrai que problème mu euh, ndaw yi problème bu rëy la euh, problème ndóol mi problème bu rëy la mais démocratie dafa ancré ci biir Sénégal am na benn genre islam boo xam ne mu ngi fi ci biir Sénégal mm. te mu fi ëpp doole mm. je ne vois pas comment ay terroristes di jóg fële n'est-ce pas ñëw Euh, pour mun a évidemment noot askanu Sénégal je ne vois pas euh, loolu naka la mun a amee mun ñu wax ne te na intérêt français yi ak occidentaux yi nekk ci biir Sénégal ay cible lañu mhm. euh, ay cible terroriste lañu waaye état Sénégal en tant que tel du point de vue sa sécurité ak askanu Sénégal man ci sama gis-gis suma menace boo xam ne mun na nekk menace bu rëy Euh, contre terrorisme. jërëjëf Seydi Gassama amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali yow yaay directeur exécutif euh, bu euh, section sénégalaise Amnesty International ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf jërëjëf